jërë ngeen jëf mbokk yi siiwur biir arène tv tey na dama jay jay fañax-fañax yi ba route de Joal ah. Ah, ñëw si xaal ji comme defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal comme nee nañ chaque année bu xaal ji commencé fii dañuy fréquenté bu heure dem làmb jotee ñu dem làmb Balla Sylla amateur amateur bu mag bi ah, ah tey nag ñu ngi fi si place am fi nga xam ni tey dama naan euh, bu bu bu bu xaal ji commencé fii si route de Joal fi lay ne boo yow mi jóge Mbour di dem Joal balaa ngaa egg juuti ba dernier jalu xaal bi nekk si euh, yoon bi féete la sa droite foofu la foofu kooku mooy bàll si si Demba ah. yow bi jugee Joal nag boo rombee juuti bi rek jalu xaal bi ngay njëkk a jot ah sa sa góos xamal ni kooku mooy Balla Sy si Demba kon nee naa leen yéen ñi nga xam ne yéenay wàcc xëy liggéey ba wàcc ah ak ak ak ak nga xam ne ñooy doxantu si tali bi de Joal bi ak koo mun di nekk rek si Petite Côte bi doxantul ba fi nga xam ne mooy route de Joal nga daal di jënd si xaal bi nga xam ne nee naa la xaal sax sàpp la nee naa la ma ne ko ba xaal commencé ba tey gars yi di jal fu nee di wax man leen xaal amagul fekk Balla jalul rek man gaw ma ni xaal am na waaw kon nag nee naa leen laal yoon la ba tey day jay jay faña faña yi ànd ak yéen si émission boobu ñu naan kaddu amateur yi nee la tey nag ni ñuy dikkee moo di nee naa la semaine bi dafa ala euh, euh, doome woon trop donte nag benn làmb moo fi amoon làmb simple si si si weekend bi moo waxoon gars yi li leen waxoon rek ni leen euh, euh, ku ku demul ku nekk rek da ragal gars yi demul woon yëpp nag ay tapel la ñaa ah. waaw yaa ma gën a xam ay ragal lañ quoi mooy loolu waaw yàlla si nekk euh, ordinateur bi la grand champion dem na defaat na mu laan def jël ko si kaw CFA bu jaxaw nañ ko bàyyi xel moom CFA xale la daaw def na lu nekk si raw gàddu yi ngeen gis drapeau yi mu am daaw ah bëre bëre bu rëy boo xoolee zone gànjaay bi zone jaxaaw fa mu dëkk toj na ko tey nag mu ngi mu ngi mu ngi bay waaram tey ren gis ngeen benn drapeau moo ëpp lu muy am euh, si saison bi biñ umbee ba tey léegi nag moom mu ngi mu ngi dem dem foofu di tenter chance am keroog demi-finale la ko Batista 2 daan keroog mu ngi noonu ñëw na finalu ki nga xam mooy ordinateur yàlla si nekk daal di koy daan mais ba tey rek comme ni ñu leen koy waxee rek kàddu amateur yi la euh, ñu ngi waajal weekend bi ñu jëm muy suba ginnaaw suba ginnaawaat suba ndax suba la ñuy wax vendredi bi lay commencé si Joal ah, mise u 14 bœuf ak ki nga xam mooy 300 000 foofu sa Joal Fadiouth ñi ko teg ñan la muy Diab Senghor ah nekk ki nga xam mooy jiite li nga xam mooy làmb foofu sa Joal CRGL bu Joal moo teg làmb jooju noonu teg teg fa li nga xam ne moo tëgg làmb ji teg fa li nga xam ne mooy misu 14 bof ak li nga xam ne mooy 300 000 trois catégories la nag suba nee nañ leen euh, ku ñëw euh, pour bëree bu yóbbu nga teel a dem 10 heures na la fa fekk dinañ dem jëli Diab Senghor si kanam lu si bëree bari dina ko leeral ah, ndax nee na làmb bëccëg la bëgg def bëggul def li nga xam mooy làmb guddi di leen wax rek ba tey ni ah, ah, eh, li nga xam ni moo di buñ jugee fi nga xam ne mooy Joal vendredi ak samedi dimanche dañuy dem fi nga xam mooy dakaar tamit àndaat ak ki nga xam mooy Jax production le golden boy de la lutte traditionnelle ah, ki nga xam mooy nee naa ko mooy sauver situation yi chaque dimanche mu indil ñu journée bu ala doome journée bii di ñëw nag 2 million la Jax di indi 2 million francs CFA léegi nag dañuy dem wëri ki nga xam ne mooy Diab Senghor borom zawal jaab sengoor borom lamb ji nee naa la déclare lamb jawal wone ni zawal dafa bokk ci lamb moom lañ bëgg a indiwaat ah waaye tamit bu leen fàttee la le le bi foofu sa fi nga xam ni moo di moo di di moo sa Dakar waaw jàpp maa ba yaa ngi am waaw yaa ngi si biir émission boobu ñu naan kaddu amateur yi ñu lay bàyyi nga nuyoo ak ñi nga xam ñooy suivre émission bi waaw waaw yaa nga ca biir a biir man yaa nga ca biir du yàgg dañ lay laaj rek lu gàtt gàtt rek jàpp waaw nuyu nuyool ak ñuy suivre bi émission bi waaw ma ne ko nuyool ak ñuy suivre émission bi aha yow la ñuy déglu nuyool ak ñi nga xam ñooy suivre émission bi waaw maa ngi nuyu maa ngi nuyoo maa ngi ziar. Euh, ñiy déglu émission bi. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mhm. di nuyu Sénégal. di nuyu képp koo xam ne làmb moo la ñor. koo xam ne làmb nga bëgg mu jëm ci kanam. waaw ñu ngi lay nuyu. Mhm. di ziar ndax ku lim di nga juum kon ñu ngi nuyu ñëpp ak làmb yëpp ñu ngi leen nuyu. dëgg it loolu am na solo nga dëgmal bis donte tey jii CRG El bu ko Zawal yow yaa ko jiite. nga ni bala kenn teug ci saison bi ci bir zawal yow yaay ubbi nga ñew teg 14 bëf ak li nga xam moy 300000 francs animation mbayang lum ak nga xam moy jab jañ mo wara commencer suba ak li nga xam ni moy ginnaw suba tay buñu ñu xam ci programme bi nu muy demee loo ñuy wax wa programme bi ni muy demee rek moy euh, li règlement tank rek mhm. non la programme bi di hmm comme ni nga ko waxee 14 nak la tek ak 300000 hmm muy ñetti drapeau tamit. donc ñaari drapeau yi day doon suba vendredi àjjuma bi. day am raw gaadu. Mhm. am tànk. Mhm. samedi bi mooy doon poids lourd bi. waa programme bi daanaka noonu lay demee. tey am na xale yu doon laajte ndax euh, euh, tey ji ku bëgg a bëre sa licence yi si licence yi nan day demee nan ngeen koy doxale waa xam nga toujours damay wax ne. Euh, règlement. ay nit ñoo ko tënk. waaw wàccewul si kaw asamaan ñëw. suuf dëgg la. règlement ay nit kese ñoo ko tënk. Mhm. te règlement lu règlement am am am des fois lamb situation lamb am. Mhm. ñu taxaw xool naka la ñuy defaree lamb ji ndax xam nga lamb tam mhm. dafa dem dafa toll foo xam ne dafay dafay dafay day des fois dafa am dëkk yoo xam ne lamb dafa dafa delluwaat ginnaaw. waaw léegi nag euh, dëkk yooyu boo bëggee defaraat lamb. Euh, tey di nga tënku si règlement. dëgg la. da ngay tënku si règlement ba mu jeex. mais des fois mu am lu ndaw loo xam boo gisee loolu ba si biir kër ba si fu mu mënti doon. Mhm. des fois dina am loo xam ne di ngeen woote yéen ñi seq làmb waxtaan pour lu defar làmb. dëgg la. waaw loolu mënul ñàkk si làmb. dëgg la. waaw. léegi xale yi nan nañuy def licence yu bees lañuy indi wala dañuy indi seen xaalis ñu renouveler leen foofu wala nu ñuy def. waa xale yi dañoo war a indi comme ma ko waxee bu ndaw. Uh-huh. waaw xale yi dañoo li règlement wax mooy dañoo war a renouveler seen licence. Uh-huh. mais képp koo xam ne tey indi nga maanaam li nga xam ne charte nga xam ne euh, charte yi nga xam ne war nga ko indi pour ñu defaral la uh-huh. waaw di nga di nga bëri si di nan lay demee lan ak lan la xale yi di indi pour mu leer. waaw xam nga licence moom bu bu licence moom boo ko amee ba pare da ngay booy def renouvellement rek da ngay da ngay daanaka da indi sa licence. Euh, bi ma jokkoo ak président départemental léegi. nee ma cinq mille joxe ak pass bi mille francs. muy six mille. nga def visite contre visite. waaw indi fekkee da nga amoon licence da nga indi sa ancien licence ak ñu renouveler mhm. kon loolu lañ mën a xaar mais tey ji lan lañ mën a xaar tamit si bis bi muy sa vendredi bi ak samedi ak ki nga xam ne moo jiite làmb si Joal. taal euh, yi fa fas yéenee njëkk a tëgg ah tey ji lan lañ mën a xaar si ay surprise si li nga xam ne mooy làmb ji. waaw làmb moom li ma la mën a wax mooy si kattanu yàlla. Ah. bu jàmm kese di am. Ah. ñun ñu yaakaar ñu jot. Ah. xam naa xam nga xam nga buñ joxee dara nga jiite ko. yow da ngay war a bon exemple. ah dëgg la. dangaa war a xar sa tànku tubay ne lii ñu ma jiite antan naa ko kon man maa dem uti sumay moyen wu bopp mhm. su ma neexoon ma toog di xaar promoteur yi ñu ñëw dëgg la mais wax loolu ma dem uti ay moyen ma ubbi buntu bi mhm. comme maa yor caabi bi man bi nit ñi ñëw mun a dugg dëgg la loolu man moo tax ma uti ay moyen ñëw ah. taxawal bés bu mel nii di woo promoteur yi nag di leen di wax ne tamit ñun tamit bu ñu yem si lii si kattanu suñu borom. dëgg waaw jàpp production comme li ma ko waxee keroog xam man man man man maay man maay man maay bopp. Uh-huh. mais lépp loo ko doxal. dëgg la jàpp production la. Uh-huh. groupe bi man maay bopp bi. Uh-huh. kon ñun pare nañu pour. pare nañu pour saison ren bi si ah. kattanu suñu borom bëgg nañ tëgg ay journée yu xaw a yu xaw a yu xaw a sakkan tuuti li ñaan promoteur yi nag ñu ñëw fekk ñu si. su ko mhm. defee Joal nekk cent pour cent lutte. dëgg la dafa tolloon moment yoo xam ne da doon tëgg chaque mhm. chaque semaine. da doon tëgg mercredi yi wax naa ko wax naa ko fu ne. dëgg wax lu ma fekke la. dëgg la kon bu demee ba Joal di tëgg ay benn ak benn mhm. lamb si at. ñetti lamb si at kooku kooku kooku ah dellu ci ginnaaw la. dëgg la. waaw daanaka boo xoolee lamb ubbeegul. ñun enregistré nañ ci ñaari mbapat. ak lamb bi mooy doon bu mag ak bu lamb bi jeexee am na beneen dafa bu war a ah, à Joal kon loolu foog la buy buy buy buy la la solo mais tamit gis nañ lamb ji fa am bi njëkkee arbitre yi dese nañoo professionnel am ñu ko doon kaas ndax mën nañoo xaar ay arbitre professionnel wala arbitre yooyu defal nañ leen li nga xam mooy formation loolu mën naa la si tontu question bi def may neex xam nga xam nga am côté lool mais ñun bi ñu taxawalee lamb ji ba pare. man ah. sama wareef mooy ma oote fi ma war a oote pour ñu indil ñu ay arbitre professionnel. bi arbitre yi ñu leen te heure te nit moom munoo nekk fenn ñëpp bëgg. dëgg dañuy ñaan yàlla li ñuy def rek. Mhm. bu ñuy lu ñuy gën a avancé nit ñi di xam ne ñun li ñuy def teg nañ ko fu wër. dëgg la. ñoom tam bi ñu demee ba retiré arbitre yi ne arbitre yi dem leen ñibbi arbitre professionnel yi gars yi na leen du ngeen arbitre dem leen mhm. par en tant président ma jël samay responsabilité. Mhm. ndax nag nit bu ñu lay fal daa am lu ñuy xaar si yow. dëgg ñu war a ñu wax ñu war a waxal ñu ñu toog def ci test sax benn nit yem fale ne leen guddi leen arbitre yooyu ñu bi moo taxoon man ma jël samay responsabilité dëgg la ñoo xam ne ancien lutteur lañu woon ma arbitre loo leen mhm. après lu si amoon ëllëg ñoom damay ne ñoom nga xam ne ñoom ñooñu waxoon jox ak ñooñu doon les responsables mhm. voilà loolu moo ko waraloon mais alhamdulilah ay arbitre professionnel ñooy ñëw bu soobee yàlla. incha allah loolu am na solo jàpp di la wax ni fi ne nii sa quatre temps du bari ndax yaa ngi si préparation bi di ñaan yàlla rek suba ak ginnaaw suba mbëri eh, mbëri yeeg amateur yi ñëpp teel a génn ñu def ko si fair play commencé ko bisimilah jeexale ak alhamdu di ñaan yàlla yàlla defal leen si réussite totale. jërëjëf jërëjëf jàpp. jërëjëf kontaan naa laal yoon. merci ñoo far. nañ la bu baax ndax yaa ngi dundal làmb ji vraiment. day uh-huh. bëgg di bëgg uh-huh. ñëpp di bëgg amateur yi. di uh-huh. bëgg mbër yi di bëgg képp koo xam ne rek yaa ngi dund si làmb rek. ñu ngi lay bëgg di la ziar te di leen di wax ne tamit. ñun ay doomi aadama kese lañ. léeg-léeg ñu wax fakkastalu léeg-léeg ñu wax juum. dëgg la ndax moo dul juum muy ko fayakul. dëgg la kon ñun bu ñu waxee juum ngeen na nit ñi xam ne ay doomi aadama kese lañu doomi aadama moom mooy jum. bu fekkee ne dañoo laal kenn bala day am suñu jum. dëgg la jéggalu di baal ak ñëpp di ziar ñëpp. jërëjëf aca jërë ngeen jëf yéen ñiy suivre biir arène tv yéen a ko gisandoo noonu kooku moo di Diap Senghor li nga xam mooy CRGL fi nga xam ne moo di euh, fi nga xam ne moo di Joal Fadiouth ah waaye tamit nee naa la suba bu yeboo ngeen xaar leen di ngeen gis sax 14 boobu nag yi ñëw nañ gis ngeen sama doom ji Lamine TV génnee na li nga xam ne mooy nag yi ah nag nag la ak ñeent ak li juróom benn fukki junni animation ba madame Sène la moom Mbayang Loum ak ki nga xam ni moo di Diap euh, Diagne bu Joal waaye nee naa nekk si borom xaal ji borom xaal jaa ngi ni borom xaal ji kaay sànni si moom amateur la nag amateur la borom xaal ji amateur la sama gars <laughs> borom xaal jaa ngi ah, man nag ba mu jalagul xaal ba tey nangu woon xaal am na de <laughs> ndax bu jalee rek ma doog a d'accord jàmbaar ziar nañ ñu ngi ziar bu baax na ngay ba yaa ngi am jàmm yaa ngi am jàmm bu baax a baax a baax ah, xaal ji ñëw na de waaw waaw xaal ji ñëw na maa ngi wax gaayam rek nañ ñëw hmm. waaw ah, fii la xaal ji baaxee quoi comme ni ko ndogee di waxee boo gisee baala si sotti xaal rek mooy xaal xaal bu neex am na waaw xaal yi ngeen doon jënd yëpp neexul bu sottee xaar rek ngeen xam ne xaal bi macha allah mais en tant que amateur noo gisee lamb ji fi ne nii débuté saison bi yàlla si nekk mu ngi rajaxe mise yi gars yi tëdd fi ñu tëdd ñenn ñi dañoo am combat ñenn ñi nee nañ seen écurie affilié wul wax ji daal bari na looy wax waaw moom comme ni ko amateur yëpp gisee rek uh-huh. parce que depuis nit ñi sax amuñu dañuy dañuy bëgg a dem sax mais boo demee doo fekk kenn uh-huh. mais amateur yi vraiment ordinateur moom mu ngi leen di bégal parce que moom chaque fois mu ngi def li ko war comme mënul am combat arène. Ah. Ah, mu dem wàcc rek jël wërsëgam. waaw mi ngi nag ñi ngi am yaakaar ne semaine bii rek ñenn ñi dinañ wàcc si ñi nga xam ne am am am nañ combat moom ñu bàyyi leen ba seen combat jàll. Uh-huh. incha allah bu ko defee affaire dina gën a neex ah. mais ñun moom fa yii xaal yee ñu tënk moom xam naa. <laughs> waaw comme que tijjee goo woon di nga yéex a gën a di gën a tijji ndax comme que xaal ji commencé na. samedi bi laa doon laa doon yootal zoal bi gis nga ko. waaw moo ngi ni xaal ji tëj na ma. xaal yaa tëj na ma mais baax na saison bi sori na mun na dem ba mois de août. inshallah buñ paré rek dinañ buñ mënee sétan nañ sétan inshallah inshallah incha non lay démé kon kama gaay yi kon xaal ji. ren bëgg nañ ay surprise. Ah. bëgg nañ gis ño xam ne nañ leen gis ñu wacc ci waat. Ah, té ñu koy té ñu koy yaakar quoi inshallah allah. voilà am nga ci dé isa la. <laughs> dara na dé yo am nga ci dé ko xam ne na ñëw ci lamb wayé dama la ah, ba tay rek ah si si fi la mburu mi di xoyam xoyamee xaal ji neex ji fi lay am yow mi juggé zawal néna la bo rombé juuti bi rek jalu xaal ji ngay njëkk jot sa góos yow mi juggé bir mburu jëm Zawal nee naa la sooy dem avant ngay jot juuti bi jalu xaal bi la féete droite bu mujj bi foofu la si Siné si Demba ah. waaye dama ni leen rang muy abonné si biir Arène TV dama ni leen kaddu amateur yi la woon tey nag nii laa ko defee rek dagg ko jël jàpp Senghor kese yaa ma gën a xam ah daal tënk di leen wax tamit ni leen ni ah, ah weekend bi dina neex Zawal ak fi nga xam ne moo di eh, eh, Dakar waaye tamit dinañ dem tamit Mbamloog ànd ak eh, Fatia production fils de Ami Collé moom Waly Diouf ah waaw nuñ ko nuñ ko waxee sax Waly Diouf a daan naa de daan doomu caare loog bi waaw noonu deme di leen wax tamit ni ah, weekend bi ñu génn benn làmb amoon ki nga xam mooy ordinateur moo ko jël waaye tamit combat yu neex amoon na biir Mbour ah combat yi nga xam ne waxaloon naa leen ko keroog cinq combat dóor ah, diggante ki nga xam ne mooy Lamtoora ak licence bu licence bu teen tubaab Lamtoora moo daan licence bu teen tubaab ah diggante ki nga xam ni moo di ndeysaan ah, ah, waaye tiijaan Faye numéro 2 bu xelkom ginnaaw raay ak ak ki nga xam ni ndeysaan mooy Mbappé bu onkaat bu saalu Mbappé moo ko daan diggante Idi bu ngëriñ ak ki nga xam ne moo di Mbaye 137 Idi bu ngëriñ moo am ndam si kaw Mbaye 137 diggante juddu ës ak Zos bu warang Zos bu warang moo am ndam si kaw ki nga xam ne mooy juddu ës diggante Pathiam ak jël dem Pathiam moo daan ki nga xam mooy jël dem lool la fi Ndiambour production indi woon nee li leen wax jaajëfal naa leen rendez-vous beneen weekend ak lamb ji ah ah chaque jour rek kaddu amateur yi la ak laa Lion de Lion borom Petite Côte Dia Senghor suba ak Joal dina mel ni tuq sa bënn saañ bëreel bu ko kenn taare teel a dem nag comme dégg ngeen ni ko jaabaxee tamit mbër yi képp kuy dem da nga indaale sa licence ak sa visite contre visite ak 6000 francs bu dee bëgg ngaa bëre 10 heures na la fa fekk waaw visite contre visit ak sa licence ah po looy yóbbu booy renouveler ak 6000 francs bu ko defee yow di nga mën a bëree si li nga xam mooy làmb ji raw gàddu ak tànki suba la ginnaaw suba la poids lourd yi ngir yàlla yonente bi ñëw leen bëre si bokk amateur yi seetaan dara ngir yàlla yàlla sinik yaa fi ne